Sénégal hmm. képp ku fi yor ndëndal diine te foor ko tëgg ko hmm. yëgal ni galañ bi ko tëgg hmm. bant bi ñu yette ndëndali galañ yi Cheikh Umar radiallahu taala anhu moo foor ndëndali moo set galañ yi moo la jox ni la tëggal ñépp na kenn génnu ci Cheikh Alhaj Malik radiallahu taala anhu maam Cheikh Umar radiallahu taala anhu moo may yaayam baayam ndax moo wax ca xoore fonde maam alfa ne ko bés dina ñëw am góor gu jóge sowu néeg nii lay mel bu dikkee dana ñaan soxna may leen ko dana ca am doom diw lay tudd bu demee ba am nangami at joxal ma ko lii boole ko aw turu yàlla ni ko bu amee ba dem nangami at bu la ko laajee nang ko ko jox boole waale ko caax Cheikh Omar de مام الفا يما يورو لي مو يور شيخ عمر كو جوخ ناخ دا فا ديم تي جهاد جي شيخ عمر خول كو فيك مو غاغنو تي غاغنو غو متي بي مو ديمي با تاني شيخ عمر رضي الله تعالى عنه تي لوكو واخ ناك نيكو دلول سب دك ناخ يو جانتو دينه داغا ورا فنك فوك ديغا تي الفو غا فنك مام الفا يما يورو ولا كون خامغا كوكو لير ناني موتاخ موم سيداج مالك فونكلام تي شيخ عمر امول فوم يام امول فوم يام ndeysaan eh, da daan wax mu ni li ma yéem ci Cheikh Omar du dara lu dul yitteem nee na Cheikh Omar jamono bi muy war ci kaw fas wi jaasi ji di dal kurus gaa ngay si kër salatul fatih ma nga yër téere bi en même temps en même temps en même temps mi ngi jàkkaarloog yonent bi en même temps mi ngi jàkkaarloog Cheikhu Tidiane en même temps mi ngi jàkkaarloog lahul mahfuz dara du ko rëcc ban nit Cheikh Umar toog na ci jihaad gi ñetti weer ak fukki fan ak ñett yu mu lekkul yu mu naanul tubaab yi ñoo bind ne Cheikh Umar daawul ñaq mukk musta am ñoo ko bind les français Cheikh Umar daawul ñaq toog na ci jihaad ji fukki dëggal euh, euh, euh, ñetti weer ak fukki fan ak ñett yu mu lekkul naanul te bu doon daa yem ci moom dañ naan kon moom li mu mën ci moom la ko yemale mais ñamu àndaloon ci jihaad jooju kenn lekku ci kenn naanu ci te kenn deewu ci te kenn xiifu ci kenn dooley wilaayaam lañ doon dundee hmm, loolu na ko nit ñi xam de noonu la tëddee Cheikh Omar du sëriñ sii bokkul ak ñoom nuróowuñ dara Cheikh Omar weeru koor la juddu guddik àllarba tombeek fan bi mujj ci baraxlu bamu bamu bamu bamu xeye da dafa wor liir bu toy xep lekul nanul ba dog jot wa rosu buñ bëggee xam ndax dog jot dañuy dik ndax liir bi tambali na namp Cheikh Omar du nit moko ko wax ta bam koy wax fukki at ak ñaar wat na ci muy soog dugg ci bir xeer wi ñu bari dañ nan dañ ko xex motax amul bammel c'est pas vrai soo demee ci safinatu saada téeram boobu mu bindri moo ko waxal boppam moo ne man li tax munuma am bàmmeel parce que dama fiy sax di liggéeyal yonte yàlla muhammad lu tax munuma samp dëkk dama fiy sax di dundal sunna bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam yàlla fayama ñaar dund gu àndul ak dee jëmm ju dul dugg ci biir bàmmeel moo ko bind 12 ans muy soog a dugg ci xeer wi ca Bandiagara te ba tey ji may wax ak yow xam naa ay nit yu Cheikh Oumar di recevoir ca Bandiagara barke Cheikh Tidiane kon xam nga loolu nekkul ay ay ay yii nii te yii may wax ñi koy wax du ñoo xam ne ay dër yu ñuul lañ yor te du ñuy ñuy parparloo ñooñu gëmuñu kenn dañuy gis lu tax ñu wax ko ñu wax ko ay naar yu weex tal lañu ne ci koo xam ne àgg na ci wax ni Cheikh Oumar xam naa ne juróom ñu ngi ci moom te daf ko way bi ci njëkk mooy daje yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy bëtam bi du teggee ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam Cheikh Omar am na li beneen bi ci des lismu laayil azamul kabirul akbar suñu borom xamal na ko ko ñaar ñetteel bi am na ndigalal yar maanaam am na loolu ñuy wax al idne fi tarbiya ñeenteel bi mooy am na al idne fil jihad Cheikh Omar radiallahu taala anhu yàlla moo te loolu mi ngi ko amee fii ci Gunjur ci xalwaam ba mu fa tëj woon Cheikh Tidiane ni ko taxawalal jihad ji mu mel ni ku ko dëneerlu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko tax dikk ni ko taxawalal jihad ji mu mel ni ku ko dëleelu sunu borom tabaaraka wa taala moo addu Cheikh Omar doog a taxawal jihaad ji gis nga ko moo tax na même jihaad jooju ay xasaayid la ci def Cheikh Omar lim bind ci téere kenn xamul ni mu toll waxuma ay xasida de ay téere xeetu dégg arabam amut ci addina xam nga ku mel noonu nag euh, wax dëgg yàlla yaakaar naa de ah waris naa mën a wax ci moom tuuti waaw ah, yaakaar naa ko que le le monde est soutenu par quatre colonnes Ben bu ci ne da koy gis ci Cheikh Omar au fronton des universités de l'Espagne musulmane étaient inscrits ces mots le monde est soutenu par quatre colonnes le savoir des sages la justice des grands la prière des justes et la valeur des braves ñeent yëpp gis nga ko ci Cheikh Omar Ben par ben. amul ben beaucoup ko Quand kon kooku kay moo téye ci jamonoom ila ibn haza ndax ñim fi bay ñofi nek ba tey ilaha illa allah waay Cheikh Omar futi Fouti kooku bi yim doon def Amna ben jaamu bayam buñ doon wax maxa cierno Cheikh Omar keroog bi mu demee ci dëkk bobu ñuy wax Ndor Mos doon fa jangi xam-xam ci serignam bobu ñuy wax Cheikh Bis Moore nga xamni ni takkon na maji Cheikh Omar fatimatu bintu said ñoo bokk ndey ak baay waajooju cheikh omar keroog bi mu tàmbalee woote ci jihaad ji daf ko fekk fële ca euh, xol ndonde yaakaar na cheikh omar daal di koy jox benn donju suuf jox ko benn bool jox ko benn yére di ko saa yoo xiifee tijjil bool bi lekk gu nekk ci sa xel dana teew foofu nga lekk basa sa suuf daal di demaat te noonu mu ko waxee noonu la deme mu ne ko fuuta nawet bu ñëwee dafay bari yoo waaye xeer yi wala boog donju suuf yi fekk yaa ngi koy teg sa wet du la jege te noonu la demee mu ko bés boo demee bay génn àddina dénkaaneel yére bii ma la jox nañ la ko sànge ñu muuri la ko suuf du lekk sa yaram borom bi du la xisaab aljana nga jëm xam nga kooku mën na ci nitam dara kon jeex na sama gaay yi de xase da baaka exe suñ feebar ba téewir sonal ko mu ni dinaa am ku mel ni Cheikh Omar ba noppi nag nekk fii di feebar ci la def qasida bi uani bi ashwaqin lam adal fihi fania xoolal wax ji dama ngi jankon tek ciofel yo xamni musuma dañ di jeex ci biir cofeel yooyu nga xamni ni ñooñu xam nañ ki ñamal affaire ba mu defé qasida bi ba qasida bi ag mu gis Cheikh Omar wacc ci ben tatu garab war naaru góor jël ben bol bu def ay raisin dal di koy jox seigne babakar Si taala anhu xamni moy sedele tariqa bi Sidi Ahmed Tidiane moom waxi na sa waay affaire yi affaire yi dafa ah ñun dañoo am fayda ah ñun amuñu fayda sëñ bi affaire pare eh, eh, dem yuqul yadayhi kaana haadiya له اللف في أمر الإله جنوده لنشر العدا لله لم يبقى خاليا شرى نفسه يبغي رضا حق ربنا ويرقى مقاما فات مرماه عاليا te loolu waxu Cheikh Omar la de شرى نفسه ji moo wax ni Cheikh Omar daa jaay boppam yàlla wax na dëgg de Cheikh ko wax ci làmmiñu boppam nee na man suma daraja ji sama dund gi sama nokki gi jaay naa ko yàlla jënd ko sunu yonent bi alayhi salaatu salaam fas yéene ko liggéeyal rek moo ko bind di loolu loolu kay mi ngi ci nu mu tuddati mi ngi ci safinatu saada hayyotan loola shahirun la da sudaani wal biidi kullihim cheikh ñu cheikh omar ñu ñuul ñeeg ñu weex ñi de <laughs> dafa siiw lool nee na yusaawi fii daañu noo man kaana qaasiya ki ki sore cheikh omar ak ki jege cheikh omar ñoo ci bokk yam ñëpp a ko xam sëñ sëñ Babacar Si moo wax lool mu ne nag yuaawiruhu l aqtaaru fuutan wa bambaran yu daawi bi daa i shirki lillahi daaiya nee na cheikh omar du toog benn place mukk mooy yuaawiruhu dana ko abalante al aqtaaru gox yi fuutan tey ma nga fuuta wa bambaran bu subaa ma nga ca bambara yee ca Mali yu daawi bi daa i shirk te benn métier rek la amoon mooy foo ko fekk jàngoro jooju ngi jàngoro yi bokkaale yàlla moom dong la fi nekke woon yor comprimé yi koy faj nag yu daawi bi daa i shirk lillahi daaya te wootewul jëme ci boppam day woote jëmale ci yàlla hmm, noonu la meloon gis nga ko waaw suñ Babacar Si dafa jël Cheikh Umar def acheikhu alhaaju umarul fuuti yubnu said benn xaraf bu ne mu def ci bay radiallahu taala anhu xasida bango bu ci xajee rek ñu dugal ko ci ñu bako ba beneen yoon ñu ñu def ko ci ah fexe amul léegi alaaj gis nga affaire bi am ko te xamu ko ñàkk ko ba faw te xam ko moo ko gën ndax ding ko wutit boo ko amee ding ko fonk ñun nag loolu li ñu dal mooy dañ koo am te xamuñu ko Cheikh Omar Cerno Turaaji Tulki taalibeem la woon dañ ko tooñ tëj ko ci benn cellule kànnaar biñ ko tëjee ay nit a ko doon jàppoo biñ ko tëjee ci kànnaar bi joowu joxuñ ko lekk joxuñ ko naan mun dina fi toog di dunde barke Cheikh Omar ba yàgg mu jekki daal di jël xalimaam ak bigam daal di tagg Cheikh Omar yaa saaxibal waqti yaa mansuuru yaa wazaru yaa cheikhana yaa waliyallaahi yaa umaru bayit par bayit jekki-jekki kànnaar bi ni tëll tijjeeku dali fële mu génn dem yoonam loolu am na Cheikh Omar yi mu doon def kenn mënu ko nettali moom dafa am mayu yàlla mayu kenn du lam-laamee ndax boo demee ci rima ci buntu ñaar fukkeel bi ak juróom mu waxi may yi ko yàlla defal moom la hawla wala quwwata illa billah dafa rëy ki yàlla du ko tuuti sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu moom la waxoon ca kan diggante Lamine Gueye ak Senghor bañ dikkee ni ko Lamine Gueye gañe na mu ni ne benn paa daal di ni ko xam nga lu lay xamal si gëm naa la trop mais bu Senghor bi gañewul dama lay bàyyi tey laa lay bàyyi sëñ Babacar ni ko bi may wax ci waxu Cheikh bi may wax ci waxu Lamine Gueye ak Senghor fi laa jéggi Maodo tukulóor bi laa ci waxal te kooku amul caaxaan lu mu ma wax dana ko def te suñ baagartee ko ñu toog ba yàgg jékki-jékki ñu programmer résultat yi ca France dañoo juum Lamine gañewul Senghor moo gañe jeex na ji rek la pour wax la ñoom xamoon nañ li xew léegi nag lii problème bi mooy comme nangootuñu delloo si daara dëppale kook jamono Cheikh Omar li mu am ci doom ëpp na téeméeri doom waaw xare rek dundam gi yëpp kooku daa tala samp kër wërsëgam dafa jaaxaloon Faidherbe te Faidherbe bu mënul communiquer ak moom ndax déggul arab déggul tukulóor mu jaral ko takk ay jarabee tukulóor pour mën a wax ak pour mën a wax ak seen euh, kii euh, Cheikh ci loolu mu wëlbatiku moom moom kii daal di daal di dem jàngi arab ba mën a bind qasida def na benn xasida ci maam Cheikh Omar feder bi ci boppam laamiyam boobu nan al alxaaju qad xajja lakin maala an ilhuda ni Cheikh Omar jóge fi dem aji waaye ba mu demee njub taxu ko woon a jóg dafa demoon ngir wuti alal indi ko pour mën a financer jihaad ji ndax alali Cheikh Omar ji da koo yiim daf ko ëlum Cheikh Omar soixante-dix ans la dund ci zaahir nii xam nga ku mel noonu wax dëgg yàlla liggéey li mu liggéey dalay jaaxal num ko fi liggéeyee koo xam ne bi ngay am ñetti at ba bi ngay am soixante-dix ans bis bu yàlla ñetti at laa wax li may wax c'est pas hyperbolique ay naari gànnaar a ko wax bi muy am ñetti at ba bi muy am juróom ñaar fukki at du tëdd guddi te deful junniy sootu lixlaas ñetti at way kooku kooku benn tubaab nee na Cheikh Umar bu fekkoon yonent dana am gannaaw yonent bi ma ni yonent la <laughs> Omar du tiit du jaaxle du ñàkkar teg ku mel noonu du ay affaire jaaxaan yi nit ñi wax de ah xeeti ragal yàllam nag foo ko takk passé na ko xeeti bëggam yonent yàlla mais Cheikh Ahmad du doom Cheikh Mouhamadoul Haafad la bi muy tagg Cheikh Omar looloo ko taggee ni mu bëggee yonent bi moo ko yéem lu mu feebar boo tagg yonent bi mu wér ci saa saa si day wér ndax moom Cheikh Ahmad du moo ne jëmmi Cheikh Omar ji suñu borom bi mu koy bi mu koy muul da ko muulaale ak bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam min mu ni looloo waral ba loola amee ca kaw mboole awliyaa yi daje bis bu yàlla sàkk ñuy tertu ganek jamonoom ba tax am benn nit yàlla bu nekkoon ca singiit wala yu bu mag da daan jekki ba yàgg di seen genn leer guy flotte ca xalwaar mu daan jógee foofu ca singiit di dem ca xalwaar di xool li xal lan moo leer gi lan la ba guddi gi Cheikh Omar ganee jamono mu jugee xalwaar ñëw jëllir bi fóon ko teg ci dënnam mu ne gannaaw mu ni den naa fi ñëw yàgg na waaye suma ñëw tey bii ak ñëwee bokkul ñu wax lu tax mu ni sama ñëw tey bii lii laa doon xaar te ñëw na mën naa dugg bàmmeel fi mu ne daf ko bind wax ko kuntu ataraddadu ilaykum li ara hada almawluda alladi sataa nuruhu qabla wiladati afaqa alsamawati wal ard dañ ko bind ñoom li ñuy wax naari naari noom ñoom c'est-à-dire bokku bokkuñu ñun te affaire dañ koy bind ñoom xam nga kon kooku nekkul Ahmed Fall reggub ceeb rek toog di <laughs> gis nga ko alaaj ok jeex na noonu la tëddee